salaamaaleykum yéen mbokku waa internetu alo Sénégal tey ñu fas yéene rek waxtaan ak yéen waaye gunge leen ci seen chronique du jour bi mbir ñu fas yéene ci waxtaanee li nga xamante ne nii nag moom moo wër réseaux sociaux yi nekk li nga xam ne nii moom moo di taxawaayu chanteur boo xamante ne nii kenn dootu ko natable ci wàllum musique fi nga xam ne moom moo di ci diwaanu Sénégal muy ki nga xam ne nag moom moo di Wally Seck nekk ndaw boo xamante ne nii nag taxawaayam daanaka am na solo lool doxalinam di dox si bam kenn dootu ko natable waaye jamono jiñ toll nii nag ñu gis ne. li nga xamante ne nii daanaka rek moom moo xewoon ci bës bi nga xam ne nag ci la doon màggal li nga xam ne moom moo di anniversaire am mu nekk loo xamante ne nii maanaam lu jéggi dayoo la lu doy waar la ba tax na nag di nga xam ne moom moo aju ci mbir moomee sax dem na ba indi ay polémique yu am solo yoo xamante ne ni daanaka nemmeeku nañ ko mu tukkee rek ci wàllum réseaux sociaux yi waaye itam nag ñuy posté li nga xamante ne ni moom moo di jile mbir nga xamante ne ni ay xew-xew la yoo xamante ne ni xew na ci diggante moom ak benn gendarme fan la xewee ci li nga xam ne ni moom moo aju ci wàllum yoon muy tali nga xamante ne ni ci la seen féewaloo daal di am ba tax na nag moom mu wàcc ngir rek daal di wone li nga xam ne nag moom moo di naqar gi nga xam ne ni am na ko jëm ci bile mbir waaye laata rek ñuy xuus ci mbir mi dañ leen di bàyyi ngeen rek seetaan li nga xam ne nag moom moo jot a xew seen diggante ak mbaboor wa nga xamante ni nii maanaam ñoo ko toppoon ci mbir mi. bindal ko bindal ko barke voilà voilà mu mel ni ñun ñoo ko gisandoo nga xamante nii maanaam li xew lépp ci vidéo bi arrêté nañ ko wàcc na di ñaawlu li ni mel waaye ci loolee nag ñi ko dar di yuuxu mu nekk fa di wonewu ci loo xamante ne ni daanaka du yoon nit nag boo nekkee kilifa nit ñi am fuñ la teg nga nekk royukaay yu ay ndaw yu bari ñoo xamante ne dañ leen bëggal seen bopp nga am looy incarné am benn leadership bi nga xamante ni nii daanaka yor nga ko war na lépp looy def lu nekk nga calculer ko ndax am na ñoo xamante ne nii tey jàpp nañ ne yow référence nga kon ci loolu booy jëflanteeg nit ñi wala lu aju nag ci wàllum li nga xam ne nii moom moo di yenn mbir yi nga xamante ne nii gaaw na ci fës am na taxawaay woo xamante ne nii maanaam war nga ko war a taxawee ba nga xamante ne ni mbir mi du àgg fi nga xam ne fa la war a àgg pourtant Wally dëgg la am na ambition il est ambitieux am na taxawaay dëgg la waaye am na loo xamante ne ni rafetul ndax ñi nga xamante ne ni tey ñoom ñoo di suñu homme de tenue ñoom liggéey wu rafet la ñuy waaye di ko jëfe kon tey jii nii même bu fekkante ne daanaka rek arrêté nañ la ci loo xamante ne nii du yoon am na neneen noo ko war a régler noo xamante ne nii du dul di génn di ko manifester bloquer circulation bi ci loo xamante ne nii du dëgg nit nag bu fekkante ne am na luñ la rusé war nga cee bàyyi xel bu baax a baax xoolaat ni ngay doxale ndaxte ñi la bëgg dafa bëri ñi la jox cër dafa bëri kon tey bul topp ay nit ñu lay yuuxu topp di la may kàttan nga génn war a jàmmaarloo kenn koo xamante ne nii yow booy nelaw moom mooy watu sa kaaraange loolu c'est uniment kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mbokk yi loolee rek lañ leen indiloon ci as tënk ci li nga xamante ne nii daanaka moo xew ci réseaux sociaux yi ñeel li nga xam ne nag moom moo di mbiix mi tukkee ci Wally Seck ak ki nga xam ne nag moom moo di ndax mu boobee ñu daal di gis ci kaw tali bi mu nekk loo xamante ne ni war nañ di ko rek daal di dàq ndax rafetul ci star rafetul ci koo xamante ne nii référence nga rafetul ci koo xamante ne nii maanaka porteur de voix nga nga xamante ne nii saa yoo wootee ndaw ñi dañuy ñëw kon tey jii nii beneen xar kanam moom moo gën a jekk ci taxawin waaye ci wanin ba nga xamante ne ni képp ku la gis dina ne ah lii kat moom mooy yoon mbokk yi di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen chronique ci chaîne chaîne YouTube di Allô Sénégal jërë ngeen jëf